sur les propos de maître Abdoulaye Wade yi wax dis mois quelle jeunesse tu as je te dirai quel avenir tu auras réew bu Sénégal tey bu ñu bëggee jëm nekk un avenir prometteur il faut impérativement loolu lu am solo la réew ndax njàng bi nga xamante ñuy def jàng ko ko ci li nga xamante ne moom mooy ñun ci suñuy bopp am impact solo ci li nga xamante moom mooy suñu ëllëgu réew ndax nit ki balaa ngay xam fi nga jëm il faut d'abord nga xam ki nga doon dëggantaan fàttaliku sa démb bu ko defee nga mën a xam fi nga jëm loolu lu am solo la ci réew malheureusement cette génération d'aujourd'hui boo xoolee la majeure partie ci ñoom dañoo perdre li nga xamante ne moom mooy suñu ëllëg wala suñu suñu démb li tax ñu perdre ko mooy. c'est ça maanaam dafa dafa dafa dafa mel ne nga nekk ci fil di dem ba yow mënatoo yegg fi nga jëm ba pare te fi nga jógee mënatoo faa dellu. nga nekk ci digg bi rek di lang situation bu mel noonu xaw ma ni comprendre fi may waxee wala situation bu mel noonu la ñu nekk ci biir réew bu Sénégal une jeunesse perdue une jeunesse désorientée une jeunesse aujourd'hui boo xamante ne amul fenn fu mu wéeru parce que fi mu waroon wéeru malheureusement. jàngaluñu ko ko et ça c'est un boo xamante ne ñun ñëpp ñun ñoo koy dund tey jii lan moo dàqoon ñuy toog di jàng di référé ci bindu Cheikh Ahmadou Rasoul lan la bindul ci biir réew bu Sénégal bi ma demee Touba dañ doon waxtaan man ak oustaz Daouda Baye waaw moom sax yaakaar naa tey lay dem Màkka dinoo ëllëg ci ajjuma gi maa ngi koy ziar bu baax mais mais Birahim dañ doon waxtaan man ak oustaz parce que dañu defoon plateau bi ñu yéegee rek installé rek def mais ci biir waxtaan bi ñuy waxtaan ñu ngi tàmbali di waxtaan ci mbinduk xaadimu rasul mais ci biir bind bi oustaz mu ngi may xamal ne xaadimu rasul daanaka bind na ci nit ci boppam tàmbale ko ci ci ndawam ba muy nekk jeune ba muy nekk moins jeune ba keroog muy nekk vieux situation bi nga xamante ne war na mën a yegsi ci ndaw gi ak dund bi nga xamante ne nit ki war na ko dundee mu nekk loo xamante ne lu am solo déjà loolu rek xam nga ñu ngi jàng développement personnel tey mais déjà loolu rek weesu na développement personnel parce que ñu ne la ndaw bi nga xamante ne da commencé nekk jeune il faut que yow ci sa bopp nga tàggat sa bopp ci li nga xamante moom mooy xiif ndaxte loolu lu am solo la ci li nga xam moom mooy wutum xam-xam léegi loolu lan moo ko weesu ci déplacement de développement personnel donc autant de choses yoo xamante ne tey war nañu ko mën a dellu si waat insérer ko ci suñu njàng bi j'ai donné juste l'exemple de Cheikh Amadou Bamba mais il y a tant d'autres exemples yoo xamante ne nekk nañu fii ci bi gën a récent xam nga euh, professeur Massamba Kandé moom j'ai j'ai toujours l'habitude de revoir ses ses ses dires j'ai toujours l'habitude de revoir ses écrits mais c'est une référence boo xamante ne tey malheureusement au Sénégal nit parfois dafay wax dara nit dafay am position bu mu am balaa ñuy rendre compte exactement li nga xamante nit ki mu ngi koy xeex nit ki mu ngi koy taxaw ci li nga xam moo jëm ci éducation on perd malheureusement ces personnes là et je pense qu'aujourd'hui ce sont ces genres de personnalités yi nga xamante ne war nañu encore une fois woo leen ngir ñu mën a orienter li nga xamante moom mooy système éducatif bi parce que ce système éducatif malheureusement il faut oser le dire ñoom ci seen bopp ñiy jàngale xam nañu ko c'est un système un changement systémique mais changement systémique boobu comme ni nga wax euh, je pense que am nañ suñuy référence ak suñuy valeur mais nañ si ñëw euh, tey yaa ngi wax ci bindum Serigne Touba ci mooy la euh, mooy le le viatique des des jeunes mm-hmm.